waa xam nga man lii rek moo tax yow nga neex ma quoi ma sama débat ak yow di neex. Mm. ma ciy kontaan. Mm. parce que da may permettre euh, ma expliquer yenn problème yi. Mm. xam nga boo ne man Macky Sall daf ma gëj a gis. cest à da ngaa bëgg ma la. waaw Macky Sall ma ak moom. d'abord euh, bërki man maa bokkoon ci ñi koy accueillir Darou Moussi mu ñëw di jaale si ñu àndandoo circuit bi yëpp maa ko defandoo. ak moom mais boobu c'est normal. la boobu bu weesoo. lu mat 4 mois ngi nii Macky Sall tànn ma ak yeneen nit. ñu nekk lu mat fukki nit mu ñuy liggéey loolu ci loo xam ne lii mooy li am importance au lieu que ñuy toog ci ay plateau de télévision di xastente di ŋàññante daf ñoo demander ñun ñu tasanteeg secteur socio professionnel bi ñi nga xam ne bi li ñu ngi liggéey mhm. pour que ñu toog sottanteeg ñoom xalaat xool naka lañ gisee réew mi naka lay doxee naka la seen secteur di doxee naka lañ gisee PSE lan la leen président dafa ak lan lan xaar ci moom pour que seen liggéey gën a mën a dox ñoo ngi ci liggéey pendant ñeenti weer taxawal déglu woo leen ñu ñu nekk ci publicité ci presse bi déglu leen ñu nitu ko won ci affaire bi te ma sawar ci xam nga tax li ma ci saware lenn la mm. gis nga acteur socio professionnel yi nga xam ne ñun ñoo ngi tasante ñoom mm. danoo raw politiciens yi dëggantaan jaay parce que ñoom fi ñu ni xam nga lan moo nekk ci ñoom li ñu li nga xam ne bi la moom laa ràññee ci ñoom te ñoom ñu wax ñu ko mm. kenn dootu leen voté loo ci t kenn dootu leen voté loo ci xaalis kenn dootu leen voté loo ci fekkee ne seen bilan ci li ñuy liggéey defaloo leen te la nga leen te war a loolu moo ëpp solo te maa ngi koy def parce que sama laa koy defal muy benn maa ngi leen dooma dog de man man nag du ma du ma jibo ka duma jiboka doo mu rek loo te jiboka sama xarit la waaw sama papa sama xarit la man man sama papa la te bu ko Macky Sall woowee hmm. woo na koo xam ne kii am na compétence te hmm. Macky Sall moomul seen président Macky Sall du moins hmm. moomul Sénégal kon képp koo xam ki yaakaar na la bu lay indee ci benn compartiment nga liggéey fa depuis deux ans ñu pinga la yow mu barak loo yéen seen télé la seetaan bërki démb ñuy wax gars yi ci jàkkaarloo. Mm. ñu naan reconnaître nañu le professionalisme de de de Moubarak mm. xam nañ ne c'est un très bon économiste nit ku mel noonu. boo ko wooyee nekk kaay ci liggéey fa dafa war a dem man nekkuma ci ñi nga xam ne dañuy tàqale Macky Sall ak nit ñi ak di tàqale Abdoulaye Wade mi fi nekkoon ak ay nit Sénégal ku fi mën a liggéey nañ la woo nga dem liggéey sans condition sans condition condition kenn waru koo posé da nga war a dem pour liggéey pour sa réew xam nga yow fi ñu toll nii wax ju leer la man dama ànd ak président Macky Sall di ko jàppale waxaale wu ma ak moom waxuma ko mu fay ma waxuma damay liggéey pour réew mi pour liggéey pour réew mi waxuma ko mu fay ma joxuma salaire laajuma ko laajuma ko place <laughs> Sénégal la ma wooye moomul Sénégal damay ànd ak yeneen ca mbir mi du seen Thierno Lo kese de man parti laa àndal ak ay Sénégal yu ah, accepté pour liggéey pour Sénégal voilà ah, léegi wax naa leer moi je travaille pour l'intérêt ah, général mais l'intérêt général mais xam nga xam dama ko liggéeyoon avant may dugg ci gouvernement yàlla may na ma lu ma dunde maa ngi tedd di sant ñi war a dimbali maa ngi dimbali xam lan moo ma dese xam lan moo ma dese xam nga man man man toog naa fii ne procureur na ma woo ca maa ngi koy répété waat bu fekkee ne lekk naa dara mbaa ñu gis sama tur ci mm. suuf mm. mbaa nga gis ko ci xaalis boo xam ne bii dama koo luubal ci ay paradis fiscaux mm. nañ ma woo ma dem wujji déglu rek maagale man xam xamul tax may liggéey fi mu toll nii am naa benn doom boo xam ne bi ngi tudd Mohamed fukki at ak ñaar la am te man mii defe naa ni li des si sama dund waratudu bu Mohamed dee am 37 ans ba muy 40 ans du ma fi fekk Mm. kon bëgg naa sama doom Mohamed buy ñëw mm. mu fekk fi réew moo xam ne mii dina fi mën a toog du wu te dana mën a liggéey kon nag réew mi mm. ku ma ci woo dama ciy jàpp dama ci liggéey parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk les débats stériles yii nga xam moom la ñuy def ci plateau de télévision yi dañ ko war a bàyyi ca seet li nga xam mooy euh, man dama lay wax li ma ñor li ma ñor mooy ñu boole doole yi liggéey di wax programme di wax éducation di wax agriculture di wax suñu artisans yi ak mécaniciens yi lan moo leen di dimbali pour que ñu liggéey mais nekk ci ay plateau de di wax ay manda di wax ay ay ay corruption ay affaire wax luy jëmale réew mi kanam mooy intérêt opposition bi buñ d'accordul ci li Macky Sall di def nañu ñëw ne Macky Sall agriculture bi baaxul ñu nii lañ ko gisee lii lañ ko war a defee agri mbay mi lii la njàng mi lii la bu ñu paree ah, ñu ne lii a def pour que yi bu ñuy tànn ñu xam ban programme lañ war a tànn eh, il faut que ñu wax luy changé nekkinu askan wi ah. te bàyyi di jël askan wi di xuloo ci plateau di xaste te ñi bëgg dépense ñu ngi toog ba léegi mënuñu ko am man ma waxtaan ci loolu loolu tey ji ah. dama bëgg ñu wax affaire programme wax la naka laa yi tax suñu émission dana métti man waaw waaw ay programme intéressé ay programme man programme luy defal affaire yi sama mécanicien yi laa bëgg ñoom fu ñu leen jox fu ñu fa toog liggéey bëgg marchand ambulant yi jox leen fu ñu toog liggéey bëgg secteur privé les PME PMI ñu jox leen ay marché ñu liggéey loo nit ñi Sénégal yi koo ci gis mi ngi ab saagam yor ay projet il faut que institution yi Macky Sall def financer leen pour que ñu liggéey il faut que ñu dimbali Macky Sall fi mu bëgg a yóbbale ñu dajale intelligence yi bañ cee xaddi kenn. ñu liggéey pour rew mi jëm kanam. mais doo ma fi téye ci transhumance ji ba ko dugg na fekk mu bare loo dugg na fële yooyu intéressé wu. ma yoruma ma fee ñëw